asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la conscience euh, ginnaaw ba dégloo Bougane mu def explication mooy explication yoo xam ne euh, buñ ko dégloo buñ ko dégloo lu war yanu maanaa la lu yanu maanaa la yàlla dogal ma xam Bougane xam ko fii xam Idrissa Seck xam ko fii xam rôle yi nga xam ne moom la sëriñ si di liggéey bay détruire politique bi nga xam ne mooy politique bi nga na bu loo yàlla Sénégal yi war koo def dellu fa Khalifa Sall xam ko fii fii laa ko jëkk xamee fii laa jàppante woon ak moom bu ko fàttalikoo ca Apollo Théâtre te mu àndoon ak Tanor Dieng ten bëndoon pëni oto we pëna pëna oto bi ko indi woon kon Euh, xam naa xalifa Sall sëriñ si aussi seeni i habitude ak seen i manière seen complicité defe naa ne euh, li mu ci bariwul waaw ndaxam xam dama ko pratique wul toog muy dox waaye euh, métier la sama benn métier yi la waaye du lu may def man complicité bi nga xam ne nag moo ni ci réew mi sëriñ si di ko def politiciens yi di ko def ñenn nit ñi di ko def mooy li yàq réew mi politiciens it seen xam-xam guddul guddul ko mel ne Bougan tey bu jógee am son projet politique muy projet bu viable surtout le canal du Cayor bi nga xam ne man ci samay projet la bokk mu insister ci insister waat ci euh, damay bett damay bett euh, benn xelu sëñ Mbàkke Moussa Nawel wëlbati ko ngir lan intéressé Idrissa Seck intérêt Idrissa Seck tax Bougan bàyyi li nga xam ne moom lañ waxoon damay ñëw gëm sama bopp gëm sama bopp wàññi ko di déglu wax yoo xam ne ay kilifa yi diine koy wax ay naxante yoo xam ne loolu bokkul ak science naturelle kan waxante dëgg kan waxante dëgg waaw man bi may dal ci kawam metti woon na ma waaye foog ma def ko ndax man Sénégal moo ma ñor Sénégal ma mënumaa nangu xel bi buggaa am ba xel mi nekk ci yor réew mi doon président de la république waññi ko di ànd ak Idrissa Seck man dama tiit ñoo ko gisee dama amuk jaaxle te it xamoon naa ne man Idrissa Seck Macky Sall lay dawal Idrissa Seck Ablaye Wade Karim Wade Macky Sall dama benn projet buñ bokk projet boo xam ne seen maçonnique ñoo ko bokk bokk gi mooy Ablaye du junj na ko nous allons gouverner pendant cinquante ans encore maanaam un demi siècle Abdoulaye Wade nee na moo ñu yoraat te Abdoulaye Sa Wade tàgguwul ak Idrissa Seck déedéet daa mel ne ñaari ginnaaru xeex wañu ko ànd fori kon Bougane bu fekkee ne am na mu xel ah te na intellect lay xalaat munumaa nangu munumaa nangu sëñ Moussa Mbacke naawel di gulbati bopp bi wërta mën naa ne ndax Bougane ko ëpp xam-xam Bougan ko li Bougan dox doxu ko waaw Bougan bu mu ko wéeree ci rek di way baayam nangam la sant baal li mu wax ma def ko te nga diggoon nit ñi wax ak ñoom dama ne Bougan erreur boobu nga def moo tax ma mere la ma mere la wóor na ma ba nga fekk Idrissa Seck bàyyi fi Ousmane Sonko di sa morom Ousmane Sonko di yow jàng ci réew mi ah, nga bàyyi lépp doon gone yow Bougan dem ànd ak màggat ñeneen di leen déglu booba laa xam ne sa dara du sotti Khalifa Sall xam naa ne demut demul la Ablaye Wade waxoon loola ci lay ci lay xëy Karim waad mi ne naa bokk naa bokk naa bokk kii jomb doon ministre Karim Wade kii jomb la ministre Macky Sall te lii ma leen wax bu ne ba ci pandaw la da ngeen ko gis ca commencement ba yeewi nee naa Ousmane Sonko bu mu ci dugg Ousmane Sonko moo fi taxaw wax ne ku takk lu ma ànd ak yow ma gëmoon loola ba ma woñ ko gis muy dajale ay doomu aadama laa ne kii daal dugal na loxoom ci gilaawaar yi te loola moo am Ousmane gi nii fu mu jëm ñu ngi koy xeex ñëm àndaloon defe na mënoo bokk tax samp garab gi ñooñaa ëpp luñ koy dóor luñ koy dóor buggaa nag dama koo xam waaw dama ko xam ñu nekk doo fi New York waaw ma xam ko bu baax waaw mere gi mu ko merit ak gàtt xel gàtt xel a tax ma mere ko bu demee bay ànd ak ay capitaine jiey ah laa xam ne kii n'est pas intelligent bu dee bay fekki Macky Sall laa xam ne kii ba di déglu ji Macky Sall kii du nit loolu moo tax ma am découragement mais nii mu expliqué mu leer ci bopp nit ñi ba mu ko war def yàgg na sëñ Moustapha Nawel wër laa dugal wër soppi say xalaat sëñ Moustapha Nawel wër laa pousse sa Seck nga di ko nangu Idi fii la nekk Tidiane xëy na bàyyi naa sëñ bi dalal ko. ba mu ñëwee ci suñ suñ bi ko waroon a dàq ne ko ne leen fa nga jógoon lislaam yëpp benn la waaye defut loolu da koo tey di ko kàpp-kàppal ak a tàpp-tàppal ak di nax politiciens yi di ko ko fekki regroupement bi nga xam ne Macky Sall kii defoon na ko Idriss Seck coalition ba mu liggéeyoon boo ci dindee la ci Macky Sall def dindi ci li sëñ Moussa Moussa Nawel miy def idi du am ñaari nit du am ñaari nit kon suñ pertement sëñ bi mucc ci ci complicité bi la bokk waaw ba nga ko war a fay yàgg na ndax am réew wër ta tardé une minute boo xamee dëgg ci am réew war toog ba suba nga wax ko yeewul ci fajar gi nga wax ko muy actualité njóg rek la problème bi sit ko foofu laale la jéppee bu ma te nëbbuma la ko dal naa ci yow ba say xarit ñëw ah di naxante ak man sa parti ñëw nañ te pour ma bàyyi la mais mënuma doon a bàyyi ndax Idrissa Seck ma xam ko muy un triant international ba ma la gisee nga jël say bagage wuti ko yéen ñeer ñëpp laay boole samay xeer mais il faut beaucoup réfléchir lii day wane ne mun leen noo yor mun leen attanu leen réew mi attanu leen réew mi ay xale yi nañ ànd yow xale nga ah Thierno Bocoum xale la ngeen topp màggat ñi nga xam ne jeexal nañ Khalifa Sall xamul xamul politique lim xam mooy dundee politique da koy dunde lu mas a am ak lu mas ci politique la ko jëlee juumut a ànd ak kenn tant que mi ngi bokk mi ngi bokk rek moom d'accord na tant mi ngi bokk moom wax na ko naa bokk rek naa bokk rek moom su bokkee rek affaire am baax na il s'en fout xamul sax réew mi fu mu féete Khalifa Sall dakaar dakaar la yem xamul leneen xamul leneen yow buggaa ngay xale ah min diaspora bi nga xam ma bu baax ma man laa jàppali fii taxaw ah Ousmane Sonko taxaw indi dëgg nga rawoon ñu ko ànd ak moom jàppanteeg moom ah di topp Idriss Seck mi nga xam c'est un trio international ah lu ma xam ci Idi wax naa leen ko lu ma ci xam rek wax naa leen ko waaw mais seen bopp yi dafa mel ne il aw yat toj ko mu mel ne kóon yi door koo loqati mais erreur bi nga def sëriñ bi waru koon a déglu sëriñ bi Idriss Seck ko moom sëriñ bi Idriss Seck matérielu sëriñ bi la te Idriss Seck dama la xamal ne rek bu faloon doon président de la république ñeme naa dugal sëriñ bi ci kaso bi ñeme na ko man damaa xam Idi bu baax Idi moo gën a garaaw Macky Sall dama ne wenn daal du Idrissa Seck moom man Macky Sall lii mu wax ci Ousmane Sonko dégg nga ko de ah Macky Macky Macky mën na ko def benn voyage Macky mën na ko def benn voyage rek tey bu doon Idrissa moo fi nekk Ousmane Sonko ba nëgële bàmmee la ma nga nee wala ma nga ca kaso ba ca Kédougou waaw complicité yii nag am dañ koy def nga ma day freiner évolution réew mi nañ ci dakk surtout ces marabu la marabu yi leen toog nañ dem leen toog réew mi daañu ko defar par force réew mi nag tubaab bee ko jël ak seen maam waxtaan seeni maam jël réew mi sarax ko tubaab bi te looloo am tubaab bi dafa ñëw seeni maam a jël réew mi sarax ko tubaab bi ñoom ñu leen di sédd boobu nañu leen koy sédd di topp seeni màggal seeni gàmmoo seeni sant ak seeni caar seeni jàkk lépp état bi di ko tabax ngeen abandonné taalibe yi taalibe yi ñëpp a sonn ñëpp jaaxle xale yi jànguñu boo demee ci àllu Brésil bi ba ba Panama ah ba ba ngay ak Équateur foofu fépp ay ay bàmmeeli sénégalais lañ ay bàmmeeli taalibe lañ ay bàmmeeli taalibe parce que li taalibe war a toog lekk séddoo ngeen ko waaw séddoo ngeen ko amul kenn ci yéen sëriñ si ku ñeenti jabaram matut ñeent te këj gëñ këj a gën a tuuti mën na koo jur wala aawa sax mën na koo jur boo moyul ndax day wàcc ci takk rek ah Khalifa Sall dama ne buga nii mu la dàq ci réunion ba lu mu préparer woon la lu mu préparé woon la benn man ngaa wax am nga moyen de communication am nga moyen de communication parce que y a la télévision ici troisièmement aussi Idrissa Seck ma ku mën a wax la ku mën a wax la donc donc pour ngeen ma dama ne Idrissa Seck ci boppam képp ku dama ne képp kuy toog ak moom di ko déglu doo nit doo nit waaw te lii nga xam ne moom la Khalifa Sall def Macky Sall jàpp ko def ko ci kaso bi Barthélemy Dias takk ay bagaasam dekkala nu ngi ko dekkalawaat Barthélemy di ànd ak Ousmane Sonko ci mbedd mi dox di ay sorti ñu dema dem ba ñu siiwaat Sénégal gépp ànd ak moom ngir Ousmane Sonko te Barthélemy dafa am complexe maanaam Barthélemy dafa gëm dafa gëm xalifa euh, Sall comme taalibi akub sëriñ mais moom wóoru na ko ne wóoru na ko ne Khalifa Sall mënta yor Pikine mënu ko mais parfois da ngay complexe ci doomu aadama ba néew doole mais Barthélemy ca élection yële warul woon ànd ku dul sonk Sonko dem di fekk Idrissa Seck loolu xalaat loolu xalaat la dem di fekk Idrissa Seck ah, man erreur yooyu moo may metti ba parfois du doo xam looy wax ndax sénégalais bi day jàppalee bële mu jàppalee ëllëg mu dem fële ëllëg ab sëriñam woo ko ne ko bàyyil kee ñëwal dugg fii demal dugg fee pati ci patata ngeen mel ne ay dof mel ni ku jàngut réew mi xale yi dama leen a mere bu baax a baax waaw sëriñ si ngeen di déglu ñu leen dugal ci galawaar yi dama ne seeni maam ma jël réew mi jox ko tubaab bi ba heure bi may waxe yéen amul benn sénégalais bu ma sa gis la documentation de de l'indépendance du Sénégal amut waaw ñu di leen raamloo ngeen mel ni ay bukki ah te li yàlla wax ci alxuraan yi ñëpp ñu bokk ko déggandoo yàlla amul ndey amul bàyyi ki nga naan mooy yàlla ki mooy yàlla ana ku ko jur dañ koo jur ki nga naan yàlla ci ab juddoo yàlla ci ban dëkk juddoo ki yàlla am nijaay yàlla am na nijaay su jëfi dof yi lañ war a bàyyi delsi ci lislaam doon ay jullit dem jaamu ju yàlla te nangu sharia yii ngeen def yéen sëriñ si laaw comme en complicité ak politiciens yi rafetul rafetul man de mun leen maa détourné waaw buggan boo góor ba am projet bu baax projet boo xam ne liggéey nga ci problème bu ma cinq ans ah defar ko teg ko ba créer le canal du Kayor boobu Ablaye doon ko su fekkee da doon fen waat da doon fen musu ko def la canal du Baol waat defaru ko da doon fen ba muy campagne doon gone ba ni loolu lay wax dem na ba doon président waxatu ko tey bu fekkee ne buggan génne na ko ah nga xam ne Kajoor gépp dañuy bay Bawol bay ndox ah, no fo euh, rive bi dekkiwaat loolu xéewal la te aussi encore la kanaal du Bawol fi canal bi awoon fi canal bi awoon dafa mel ne lac du Nil foofu bu duggoon ñi nga xam ne boromi xam-xam la dugg topp canal bi di ko gas danañu fekk loo xam ne xamuñu lu mu doon alal ju ne ko fekk dama ne le canal du bi nga xam ne moo moo la Bawol continuer kanaal boobu canal boobu nga xam ne ay ëpp na mille ëpp na ko canal boobu tey bu nu amoon ay technicien wala waa université Dakar tekki dara ñi def chemistry dugg foofu topp kanaal bi gas ci gas ci biir lu ba sori daañu fekk loo xam ne du duñ xamati lu mu doon platinium lépp dana fa nekk ndax di di dé déeg bu rag la bu rag ngeen topp Macky Sall rek topp sëriñ si rek ñu deen tifli ngeen di ràmmel lay golo ah. Bougan revient à la maison dellu ci Ousmane Sonko nga balu ko àq te bàyyi ñii Ousmane Sonko bu mu dëgër bopp sagari nit ñi mu àndal na ko bàyyi waaw dis-moi ton ami je te dirai qui tu es tubaab wax waxuma ki ngay àndal moo natt la maa natt la xam yaay kan waaw sàcc yi sàcc yi ne leen bàyyi problème bi mu am lépp lépp lépp àndal doo yéeku ci dugal waaw boppam bi na ko ubbi il n'est pas un politicien il n'est pas un politicien mais nit la koo xam ne xam-xam la war a demee diineem gunge ko mais mais les parti politiques dafa amul njariñ waaw ah, depuis que le Sénégal est Sénégal y a combien de partis man j'ai vécu avec Senghor ñaata partis politiques fi nekkoon même PDS PDS bi ko Senghor de créer comme démb ci man PDS PDS Senghor ko moom Ablaye moom dara waaw loolu lépp fi ma fekk tey bu fekkee ne Karim Wade dafa nekk ca Dubaï wala fu mu nekk moo xam ñu ne ay doomi sénégalais su ndey di nit ku ñuul juddoo ci bi Sénégal ñu juddoo fii ñu bëgg na ay doomi yoo xam ne ab naar boo xam ne xamul fu mu jóge ab laa aratu ko indikoo ko ngeen jël pare bu ko faa dugal barke sëñ Tuubaa noo bon dama ne tekkiwu ñaari dërëm ñaari dërëm daluñu ko bu ma léegi ñu naan karim karim karim xola wuteet noq li bëgg waaw waññu ku leen ngeen doon ay nit waaw sëriñ sii dama ne billaahi wallaahi ba dalee ànd ñoom kañ la maam Touba kañ la sëñ Touba génn àdduna kañ la maam Maodo génn àdduna ñun ñu suñu maam kañ lañ génn àdduna ndax ñii fi nekk ah ma mën nañu di jënd lu añee lu añee noonu ñun koy ñëw lu añ waaye joxuguñu dara te yonent bi dafa ne loxo bi féete kaw bu sang am moo doon sang te ban xew ba nag lu ñu lekk ñu leen ko jox seeni ñeenteel ñoo koy takk laal ba ñu tëddee seeni soxna ñoo koy jënd ah ba ca ndaa la ñuy naan frigidaire sedd di ñoo koy jënd fauteuil seenu saal noo koy jënd te kat bu ndikkee ci suuf la ñuy toog mel na ay mbaam xoox ah bu déglu naa la je vais te donner une chance te bëgg naa nga wooma parce que sa xel gàtt na te il faut ñu ubbi waat sax yóor gi waaw la ma doon wax lépp mer mere la mere la mere la moo tax àgg naa ci saaga saaga sama am sa def naa ko parce que war ngaa dépasser période bi fu la Idrissa Seck di manipuler nga nekkoon fii Idi nekk fi nga xam li xew mu mu li takku saret par parce que sëriñ bi dane ma sëriñ bi dane ma dal fekk Ibou mu seet sama sëriñ ñaari sëriñ yi waxtaan mais Sénégal est une république pourquoi sëriñ si waxtaan ci loolu pour pourquoi mënoo wax ak nit ñi pourquoi mënoo wax ak man pourquoi mënoo wax yenn Sénégalais yi pourquoi mënoo wax ak ñëpp digg un projet bi ñëpp yaakaar ko nga sëñ bi moo ma ne naa leen ci Idrissa Seck bu ma dee dana ma yóbbu àjjana a tin samber loolu baaxul bu am bo ah dama mu nga yeew jóg diju ànd ak Ousmane sonk nit ñi jàppale la mais affaire capitaine ji bu ko fi def capitaine est un nervi c'est nervi réer na leen bu yàgg dëpp ba mu annoncé annoncé les forces occultes ci rajo Maïmouna a ndiir Ndour ba nëgën ni ba nëgën kenn gisutu ko muy jooy comme jigéen un capitaine de l'armée war a tiim rey lu bari toog ci di jooy comme jigéen laa ne kii kii nervi la waaye kenn gisatu ko kenn déggatu ko anam anam wax leen mu ko yéen ah dama ne buñ bëggee liggéey Sénégal yéen xale yi ànd leen na Bocoum demal nga fekki Ousmane sonk dëgër nga bopp demal nga jël sa fekk Ousmane Sonko du sa morom demal nga fekki ko te bàyyi sa yëfi dof yi yaa ngi ba jota demal nga sangu ji tuub comme yéefir buy duggaat ci lislaam fekk Ousmane Sonko boo ko deful da nga torox ci politique Idriss Seck moom jeexal na dana dee jeexal na tàkk ci li jëm ci politique waaw sëriñ bii ko gembit ay taalibe weddi nañ ko ndax Idi mi du mos a ci àdduna waaw maa ngi jégalu bu baax te ñaan jàmm yàlla buur yàlla suturaal te ni jàmm ci jàmm rek lañ bëgg ah. mais kenn dootul nax naxe jeex na tàkkan ah. ku yaakaaroon naxe demal nga sawi te tëri nit mënutu fee ndax nit dëgg rek dëgg rek dëgg rek ay am peace and love man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience yàlla buur yàlla suturaal euh, yal nañ yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi te def ci suñ xel def ci suñ ne réew mi kenn du ko defar ku dul noonu kon yéen xale jóg leen jóg leen ngeen taxaw yafa amoon xeewi na xeewi na jóg leen ngeen jël seen responsabilité defar réew mi peace and love jaa ngeen jëf jaa ngeen